histoire politique bu Sénégal dana ci bokk bisu tey bii di le septembre waaw bis la boo xamante ne nii ci wàllu politique histoire dana ko bind ndaxte ci la ñuy grande coalition de l' bi nga xamante ne nii ay parti yu bëri yu nekk ci opposition bi dinañ ci bokk bisu tey bii histoire nar ko bind gannaaw ba nga xamante ne nii sénégalais yu bëri ñu doon sàkku l'unité de l' ñu booloo nekk benn opposition bi war a am devoiru dégg askan bi te yi ñu jëm artificielle bu njëkkoon bi ñuy xalaat li ni mel ñu bëri xamuñu woon fan lay commencé fan lay yem ndaxte li jafe woon dëgg mooy kan mooy engagé wu dox si lii ba mu sotti teewul ñoom waa opposition bi njëkk nañoo dajee waxtaan ci seen biir ne gis nañu kenn koo xamante ne nii bu ci doxee wax ci ñu bëri ci opposition bi lu mu dee dee dee daanañ ko nangul donte ñi ci ëpp nag bokkuñu ay courant politique maanaam ngëm-ngëm ci wàllu politique doxalin ba ci sax taxawaay waaye teewul bu opposition bi ñëpp war a bàyyi daal di taxaw dañu tànnoon nag ngir mu dox li ni mel mu di Khalifa Ababacar Sall bu taxaw Sall ñu dénk ko liggéey bi ni mel d'accord donte liggéey bii liggéeyu suuf la woon waaye pression bi nga xamante ni tegu na ci seen kaw ñoom waa opposition bi ñeen élection locale yi nga xamante ni li ci des bareetul opposition bi war booloo nekk benn ngir xeexandoor yenn ci ay défi yoo xamante ni moom la ñuy waajalee élection yi bokk na ci mbindu yi ñeen liste électorale yi mën nañu wax sax ne donte am na ay yëfi cuune ki sàcc yoo xamante ni commencé nañ ko remarqué leneen lañ nguur gi te mu waa benn bokk yaakaar danañ leen duma duma yu metti ci élection yi ñu jëm lii tax na ba ñu gaawantu def seen grande coalition bi nga xamante ne nii ñu ngi fa la amee annonce grande coalition bii ne ñoo koy togg ñoragul moom Serigne Moustapha Sy bu parti pur doon xamle ni jokkoon nañu ak moom ngir yëgal ko grande coalition bi nga xamante ne nii ñu koy bëgg taxawal ci biir opposition bi mu jox leen accord waaye teewul gannaaw discours nañu ndekete ca dëgg-dëgg liggéey bii ni mel dafa paree gutoon waaye Khalifa Ababacar Sall mu ngi woon ci coordination bi comme nag li leen desee ci temps bariwul pour ñu liggéey il faut que parti politique yi nekk ci biir opposition bi ñëpp bokk benn gëm-gëm ak benn bëgg-bëgg te moo du booloo nekk benn ngir bañ yenn ci ay pexe Macky yi nga xabate di saa su nekk mu tegal leen ko seen kanam waaye nag appel bii ci grande coalition bi dana wane problème dëgg ak yenn ci ay leader yu nekk ci opposition bi rawatina ki nga xamante di saa su nekk tudd ko dama di Ousmane Sonko démb la ñu annoncé ci jeudi bi la ñuy grande coalition bi ci opposition bi war a ëmb ay parti politique yu bëri waaye matul ñaari waxtu parti yu bëri ñu gën ràññee ci réew bi kenn ku ci nekk di bind communiqué am di wane ne bokkul ci grande coalition bi bokk na ci ay leader yu mag yu ci mel ni maître xam ne histoire da koy bind te képp koo xamante ni nii intérêt réew mi moo la ñor waroon nga mën wuy jee ci grande coalition bii waaye lu ko mooy rek askan bi dinañu xalaat ne ndekete seen intérêt politique dong moo leen ñor ay poste politique ak seeni intérêt parti te bañ a bàyyi xel ci demande sociale réew mi te mbooloo bii nga xamante ni moom la woote ci grande coalition bii demande sociale la boo xam ne askanu Sénégal ci boppam yàgg nañu ko sollicité ñeel opposition bi sénégalais yi nag war a xàmmee bu baax te xam ne ëllëg lu mënti xew tam bu mbetti kenn xanaa kay li jaaxal ñëpp moo di parax-paraxee gi nga xamante ni bëgg nañ ko def grande coalition bi taxawal ko ci na mu gën a gaawee lii jar na tey xel waaye tamit ñàkk wuy gi nga xamante ni nii ñenn ñi ñàkk nañ ko wuy si grande coalition bi a laaj ci la goo xamante ni ñàkk nañ ko nawloo ñenn ñi ne ci opposition bi lii tamit lu jar a laaj ci la en tout cas ak lu ci mënti xew tey jii ci alxamis gi yem septembre ci la ñuy la grande ñu gën ci ràññi waa Pastef les Patriotes Parti Pur Taxawu Sénégal bu Khalifa Babacar Sall ak Bougane Gueye Dany bi nga xamante ni moom tam wuyu na ni fan yi ñu génn waaye ni ki ji di suba gi ci la gis itam Déthié mu def déclaration di wane ne dina wuyu ji tey ji lancement grande coalition bi kon na chers internautes bu ko kenn tardé ça sera en direct sur Enquête à partir de heures